noppali leen ndax wax ji bari na waaye dama bëgg a dalal xelu ñépp lii lu ñu bëggoon ñun la suñu bopp fàttaliku leen ay weer ci gannaaw def naa fi benn émission ak ay journaliste demoon ba ne leen fileeg moom doyen des juges woowu ma déglu ma dootuma sax signé kaye bi te noonu laa ko doxalee woon moo tax fan yi bu mu demee ba jàpp dat ba ñu yëgal ma ko laa dem def la ma war a def kon ku tolloon foofu xam ngeen ni moom yàkkamti woon na da ngay dégg euh, waa boor bële suñuy wax bëgg ëlëmal xelu Sénégal yi naan waaw li tax muy daw moom na dem uyu waaye man duma ma convoqué sama bopp doyen des juges moo mun a convoqué mënumaa xëy yenn samay bagage dajale samay avocat ne maa ngi dem tribunal kon su yéexoon ci ñoom la yéexee waaye ñun lii lu ñu yàkkamti woon na am na tey lu ne ñu ngi ko ciy wax may dalal xelu Sénégal yépp amul lu gën a ordinaire lii bu ëllëgee bu soobee yàlla dinañu xëy dem jàkkaarloog doyen des juges wax ak moom li ñuy wax ak moom ñibbi si fanaan suñu biir kër fii semaine prochaine ñu woyal incha allah suñu dox dem defi suñu nemmeeku tuur ñi naan ay su demee dinañ ko jàpp ak dinañ ko lii ak dara amu ci dama leen yàgg wax ni dossier bii du dossier boo xam ne dañ ma ci jàpp wala dañ ma ci tere nekk candidat dinaa ci dellusi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 même bi problème yi di am daaw ji man wowuma kenn ne ko kay gunge ma moo tax kenn mënul génne seen affaire u tappale ñu doon def naan trouble à l'ordre public mënaluñ ma ci dara ndax mosuñu maa gis ma def déclaration ne gars yi ñëw leen gunge ma bañ ma bëggee forcer bu ci njëlbeen ba kay laa ne woon sama droit à la résistance ndax constitution moo ne ku ñu bëgg a jaay doole am nga sañ-sañu lànk résister waaye bi ñu jaaree fi ñu jaar ba ne levé nañ immunité dama jóg dem damay wuy ji kon suba li may ñaan nit ñi ndaw ñi surtout bu kenn naan damay dem kër Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fii wala fële audition man maay dugg ak samay avocat jàkkaarloog juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër loolu jaru génn moo tax ma leen koy ñaan ndax xeex bi xel a koy xeex xeex bi xadar xeexu ko xadar mooy mujj ci xeex bi waaye li koy jiitu xel la ñiñ ko seqal rek dañoo jàpp ni mën nañ def stratégie xam nañ ni amuñ dara dara dara ci dossier bi waaye dinañu créer ay provocation ndaw ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy xër trop tàbb ci ñu mën a génne dossier ci biir dossier bi wala mun ñu mën a jaare foofu essayé naan dañuy teg loxo ñenn ñi te loolu jaru ko loolu mu ngi suñu kanam dinaa ci ñëw moo tax ma ñaan leen ne leen lii lu banaal la gàcce lay doon ci moom mu dajale li ñu am yépp ci sandarme ak alkaati ñii mu jëlee leen ci région yi fu ne yàq xaalis bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñëw ba fii ñépp dëdd ko romb dem def joxi seen soxla loolu mooy doon gàcce gi moo tax ma ñaanaat ko ak kum munti doon ëllëg du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñëpp doxi seen soxla ku dul amul soxla da nga toog sa biir kër ñu dem defi suñu audition ñibbisi te bu ñu ñibbisee dinaa dellu waat nag ci loo xam ne lu yaatu la def benn point de presse waxtaan ak sénégalais yi nag ci dossier bi parce que foofu la ñuy toll après bu ñu ñibbisee dinaa leen wax kañ la dajale ñëpp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xam ni complot bu ñàkk fayda ba pare. ay kilifa yu mag a mag a mag ci réew mi seen loxo takk ci rip te ñu am ci firnde loolu la ñu eh, jàkkaarloog fi mu toll nii loolu yeggaguñ ci li am solo mooy suñu demee def suñu audition ba ñëw nañu seetaan suñu gaay fu ñuy mujje nañu seetaan fu ba bët di mujjee gi wante wandentam ndax sàcc ndënd yomb na trop waaye fu ma koy tëggee looloo jafe ma baamuwaat ne leen dossier bi mënuma cee dem kaso dossier bi mënuma tere nekk candidat 2024 bu dee nag ci loolu lañu bëgg a jëm lii ngeen di ruumanaat li leen mbir mi jaral ak xeex yi ngeen di waajal foofu lañ koy xeexee waaye du léegi moo tax ma ne leen bu leen yàkkamti jamono jële def naa benn live ne leen xeex kenn du ko xeex te ñoragul te ñoom ci seen stratégie ci loolu la ñu ne waa ji xam na ni jeexal na takk takk takk biir njabootam sax tas na mil lu dul ñi muy fay xaalis ñuy wër ci télé rajo yi di saaga amul kenn kuy nit ku baax koo xam ne tey mi ngi ci biir njabootam sénégalais yi dëdd nañ ko wan nañ ko gannaaw te ñaari élection yi fi weesu passé na ko ndax ku jugee quatre soixante cinq pour cent tey nga nekk quarante cinq pour cent ma quarante pour cent jeexal nga takk ci réew mi moom loolu xam na ko moo leen ko gën a xam yéen ñëpp waaye ku mu yóbbaale la bëgg déglu leen ma bu baax de dama leen di wax waxu xel fi mu ne nii dañoo nekk ci phase guerre tactique stratégie boo ko dul def doo egg fi nga bëgg a jëm même ñi nga xam ne nitu diina lañ dañoo def stratégie ba yegg fi ñu yegg kon moom ku mu yóbbaale la bëgg yaa deux ans laa leen njëkk a génneel théorie la stratégie du kaw mooy nu muy def ba réew mi jaxasoo rek xeex am fu ne guerre civile sax am si mu profitoo ci ñun waruñu ko topp ci loolu te war nañoo góorgóorlu ngalawaay ba su dee jàmmarloo dafa war a ci mu doon bu mujjee ci jàmmarloo yi fi ma jaar yépp dama wax ni ñun jàmm lañu bëgg jàmm lañuy dox kenn musul gis ñu jóg dem dóor kenn kenn musul gis ñu jóg saaga kenn kenn musul gis ñu gaañ kenn kenn musul gis ñu rey kenn kenn musul gis ñu tëj kaso kenn te loolu lépp ñu ñu koy def bis bu ne ñëpp teg ci bët kilifaak sénégalais ordinaire xanaa kay ñeme koo wax wala bañ koo ñemee wax ku bëgg jàmm du weesuwul loolu ñoo ngi jóg sol suñu dàll dem di seeti sénégalais di waxtaan ak ñoom di leen waxtaan ci suñu gis-gis ak suñu programme di leen waxtaan di leen déglu seeni jafe-jafe di leen wax li tax réew mi doxul ci yorin gu ñaaw ak ni ñu taylee suñu réew jox ko tubaab yi ak ni ñuy sàccee xaalisu réew mi di ko seddoo ku bëgg jàmm dina doxee noonu ku bëggul jàmm dina doxee noonu ci jàmm ak salaam te gis ngeen fu ñu dem ñu jël ay nit fay leen naan leen songu leen saaga leen xas leen sànni leen xeer kon ñun jàmm lañu bëgg te ñaan nañu yàlla réew bu naree tegu suñu réew suñu loxo na doon ci jàmm ndax réew mu tasaaroo boo ko boo ci jotee it di nga def cinq ans nooy def ba réew mi defaruwaat ba réew mi nekkaat ci jàmm waaye doo doo liggéey kon ñun jàmm rek lañu dox te nitu fitna ci réew